mbokk internautes yi dal leen ak jàmm vote bureau municipal bu mairie ville bu Guédiawaye jamono ji ñu koy daal di nag amal foofee nga xamante ni nag moom mooy ca diwaanu Guédiawaye jamono ji ñuy àddoo tey ji ci mercredi 2 mars gi ñu daal di nekk la ko daal di nag jàpp annoncé ko ni kii démb installation bu Ahmed Aidara ak conseil municipal bu Guédiawaye ba tey nag ñu ngi ci wax coow lu ne cour mardi bi yeewi askan wi mu daal di nag mer ba futu ngir informer opinion bi ne état bu Sénégal dafa nekk di manœuvrer ngir confisquer vote bu population bu Guédiawaye ak nag victoire bu opposition bi euh, ci boobu le localité ci benn communiqué de presse IGFM la parcourir ko euh, ci la coalition Yewwi Askan Wi di wax ci benn abus de pouvoir à travers ay lettres yoo xamante ni nag daanaka ci vingt cinq février deux mille vingt deux gi respectivement bu ministre euh, des collectivités territoriales ak préfet bu Guédiawaye di exiger euh, maire de la ville di Ahmed Aïdara mu procéder à la convocation euh, du conseil de ville euh, ngir daal di nag élire ay adjoint au maire daal di nag doore ci deuxième adjoint coalition Yewwi Askan Wi di rappeler que ne élection des adjoints au maire bu ville bi daanaka c'est indissociable maanaam kenn mënu ko tàqale ndax moom mooy boole lépp bu ñu sukkandikoo ci principe démocratique yi waruñu daal di wax benn élection d'un adjoint qui n'a pas eu nag euh, bu fekkente ne euh, moom moomee respecté wul euh, toutes les étapes et opérations bi nga xamante moom la vote bi doon laaj ñuy avertir itam ne coalition Yewwi Askan Wi dina daal nag tenir pour responsable moo ne day il ñu daal di nag wax ci li nga xamante ni nag moom la coalition Askan Wi ne nag mi ngi tenir pour responsable nag toute personne bi nga xamante ni dafay daal di nag bëgg porter atteinte à l'exercice des pouvoirs bu maire de la ville bu euh, euh, Guédiawaye ndax euh, nee na nag ngir procéder au bon déroulement ci réunion bi nga xam ne moom war a conduire élection adjoint au maire yi ñu fàttali ne installation bu conseil municipal bi dañu ko daal di nag suspendroon ginnaaw vote bu premier adjoint au maire candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar bi gagné woon maire élu di Ahmed dara daal di dénoncer benn hold up bu ñu bëgg def ca mairie bu Guédiawaye laataa moo suspendre séance bi ci depuis nag processus bi kenn euh, poursuivre ko ba euh, tey jii nag moo tax coalition Yewwi Askan Wi noppi woon ci ba tey jii nag euh, ñoo daal di nag génn ngir wax nii rek dafa am nag loo xamante ni faaw ñu dénoncé ko ci biir coalition. yeewi askan wi ndax bu nu ko deful rek dinañu daal di nag bëri nag doon li nga xamante ni moom mooy nag ay complice ci mbir mu ni mel te sax faw